manifester ba mu saf waaw wane kon seenu naqar laa la wax la ñuy sakku daal mooy wàllum justice bi na ca def kon liggéeyam waaw ginnaaw na kon ba ñu reyee nappkat bi nga xam ne kon moom mooy fàllu jaxate te nag ñi nga xam ne ñoom ñooy kon géej yu Mauritanie yële ñoo ko dóorub sox xale dee allahu akbar te tamit lu ci dooloo juróom-ñetti ci ay nappkat day sénégalais waaw teg nañ loxo na kon ci diwaanu Mauritanie gae réew mi ko a ah. waa ñii ñoom xanaa dañoo xel de ñi ngi fooyee seen xel de boog sobi li ne faatu gi nga xam faat nappkat bi nga xam ni kon ab ndar yee la waaw te nag waa Mauritanie kon def lu ni mel day Saint-Louis moom waaw démb dama ne da doon jax-jaxi laa lay wax nii di tàkk day Macky Sall si suna de président Mauritanie di Abdoul Aziz day daal dina jéggalu ay manifestation yoo xam ne day démb yu mitee miti la sax waa géej ndar day na kon ci ba nag benn bateau de guerre ca frontière ba ngir di aar nappkat yi nga xam ni kon ñoom ñoo fa ne laas gis bi le waaw ma ne nañ wax nit ñi lan moo ko rey maanaam kon autopsie ba waaw te néewam bi nga xam ne tamit dañu ko sànni nag maanaam kon ca njaago gee nañ ca wax seen gaal yi nga xam ne ne dañ kaa jàpp ca Mauritanie gee nañ ca wax waaye tamit yeneen nappkat yi nga xam ne kon maanaam ni ngi leen téye ca Mauritanie gee nañ ca wax te indiwaat leen ma ne la xale yi kay démb fépp la ñu taaxu laay la pono daal ca mbedd ma laa la wax ngir bañ policier kon kon grenade yaa nga fa woon ba ci foofu Moustapha Malick Gaye gone yaa nga fa woon place Clédor bu nag gone yaa nga fa woon yéene kaay gi ne président Macky Sall day daal di nay naqaru nag lu nu mel bu baax a baax sax dossier ba kay da koo jëlal boppam l'observateur ne ndar geeg Saint-Louis di Sénégal day waaw ma ne la safara si kay démb ak ngan naa yax waaw daal dina fay feeñ président Macky Sall ci boppam ne nee na ne lépp leer la xew démb ca ndar Macky Sall ci yéene kaay yi ma jambal jàngi ne dama ne lii mënootu ñoo continuer di ko dund laa la wax di rey nit ñi lii mënootul continuer enquête yéene kaay ne boo bëggee dégg dëgg waaw c'est une affaire d'état looloy dëgg de nguur a nguur la de ca ndargeej googee waaw ndargeej day président Macron kon bu ñëwee Sénégal fa la jëm maa la ko wax boog sobili ne ñëw président Emmanuel Macron boobee ci Sénégal waaw ma ne la tas na PDS laa la wax xar na ko de waaw parce que Ahmed Fall a day ma jiite PDS ca Ndar waaw moom la ñu jox na comité bi war a gàttandu kon Macron mi ak président Macky Sall yaa jum wala maa jum kon xoolal bokkatul ca ñoom nañ ko dàq waaye nu ne loolee Omar Sarr wax waaw moo tax ñenn ñoo xam ni comité directeur la nu nekk day nee na ñu gis yéen Omar Sarr mi waaw ma ne la Macky Sall lay liggéeyal ci suuf moom it eh waay Samba ah maa la ko wax ma parti démocratique sénégalais fa mu nekkoon fa maanaam manifesté na morsoy xonq na ruus xonq tur fu Macron jaar ak Macky Sall waaw nañ leen topp pour xamal Macron ne ko gis nga nguuru Macky Sall kii nguur guy sàcc ay élection la la wax nguur guy kàcc laas waaw nee na bu dee nguur gii Macky Sall jiite ay morsoy xonq rek la ragal a eh. eh. Macky day kon ne ko leer dana génn réew dana daw de bu xër lay def ndax danañ ko xonqal ba mu xonq cor lu jëm nag ci wàllu mars bi nga xam ne opposition bi dana ko amal kon juróom-ñeenti fan ci weeru février waaw PDS day nee na ñu ñu ngi woo section yi di woo fédération yi di woo mouvement de soutien yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Dakar nañu mobiliser natar démonstration gouvernement bi ci la Soleil yéene kaay day nee na gis nga dossier Khalifa Sall bi ah, ak li ci coow li di bëri yëpp yoon rek droit yoon waa kër Khalifa yi day jàpp nañ ne yoon kon amu caax termine yéene kaay ne seen sànni tàccu ba day é mois ak ña procureur mi waaw ay comploteur lañu dañuy comploter lu jëm ci wàllum Ousmane Tanor Dieng nag moom kooku moom wàllum njug ñaaj politique lay def di escroquerie politique Barthélémy Dias kon yemu ca ndaxte nee na xoolal Tanor Dieng 1998 ba 2007 2007 ba 2014 lu ëpp fukki at ak benn ngi ni lée Tanor Dieng organisé wul congrès ci parti bi teew Tanor ñeenti at yu ne daa war a dëgg congrès lii luy ndeyam Le Soleil yéene kaay ne en tout ba day maître El Hadj Diouf bojo di attaqué Khalifa Sall wala di ko xas moo tax it Ahmed Suzanne Camara jàngalekat la boo xam ne fi ne nii daa tekkeetul dara di jàngalekat bu réer bu dee dafa bëgg a jël place yu suturé na ko dem lijjantee neneen te bàyyi xaar te eh waay Samba ñooñu Khalifa Sall parce que sëñ bi Samba nee gis nga El Hadj mii l'international joueur waaw na mel ni Didier Drogba wala Samuel Eto'o fils jàppale seenu askan la ñooñee def ci wàllum social front social bi day waaw taxar naa si na laaste eh, l'observateur numéro 2 ci l'observateur nee na man day maay mbër mi nga xam ne nag man la gën a bañ ci arène bi déet waaye la ah ne lamb ji Yékini ko gagné aha Modou ci enquête yéene ne xanaa xamoon leen ne clé bi nga xam ne moom moo daan Lac de Guiers Yékini ma ko jox termine yéene kaay ne Lac de Guiers ay calcul yu ndaw ay calcul ñoo ko daan Lac de Guiers numéro 2 ci la quotidien yéene kaay nee na suuf moo duggoon sama biir bët bi suuf moo duggoon sama bët <laughs> alaaji cey lamb ji mbër mu daan indi clé bu bees mbër muñ daan coow li bari te olof jaay nee na bët la koy du ko gis ma naa la alaaji tëjal su ngeen bëggee teewluwaat li si yëglekaay fenn rek